سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله waaw lii lii nag moom dafa ni loo xam ne at bu jot Senelec da koy def maanaam bu ñu jubloo ci événement yu toll nii ñu xam ne mission de service public la yore dafay jaadu ñu ñëw kilifa diine yi nga xam ne ñoom ñoo ŋànk bés yi ñu ñëw jottali leen message message bu ñu leen jottali mooy Senelec bi nga xam ne sénégalais yi ñoo ko moom jël na disposition yëpp lu jëm ci wàllu courant bi ba nga xam ne événement yi dina mun a dox ci ñoom ni ñu ko yaakaaree damay wax rekk ne léegi problème bi nekkatul ñëw wax sëriñ bi dinaa mën indi courant ndaxte ñëpp xam nañ ne léegi courant bi doy na léegi kay lu ñuy def rek mooy su ñu ñëwee day nekk ay moment ziar day nekk moment yoo xam ne dañu ñëwoon sëriñ bi nañu dëkk bi wala dëkk bële bëggoon naa fa courant ñu ñëw ñu ne ko def nañ mais léegi suñu déplacement yi nekkatul déplacement bu ñëw wax ne sëriñ bi dinañ mën a undi courant parce que ñëpp xam nañ ne courant bi doy na léegi nag dëkk yi nga xam ne sëriñ yi laaj nañ ñu ko dugal nañ ko ci programme accès universel à l'électricité bi nga xam ne monsieur le président de la république def nañu dama bugg à l'horizon 2025 fépp fu nga xam ne sénégalais nekk na fa xanaa moom mu bañ ko de mais bu soxlaa courant war na ko mën a am donc ci programme boobu lañ nekk projet yi tëgg nañ ko xam nañ ñaata lañ ci soxla xam nañu aussi ñan lañ ci war a demal moo tax ñuy ñaan sénégalais yi rek ñu muñal ñu rek xam ne dinañ yegg si fu nekk waaye nag loo xam ne mënoo ko def si benn at da ngay commencé te booy commencé nag mooy am na ñoo xam ne di nga leen bàyyi mais ñeneen ñi nga xam ne jotaguñ ñu ñaan leen rek wan leen ne dinañ yegg si si ñoom ndaxte lu président wax dafa leer daf ne 2025 bëgg na ñëpp am courant kon donc programme yi suñ ko tëggee ba pare lu ñuy def nii rek mooy dañoo commencé fu nekk nag dinañ fa dem parce que war nañ fexe ba sénégalais am courant moo ñu leen di ñaan ñu am compréhension boobu si ñun ñu ba nga dinañ xaar ba tour jot ñëpp ñu jot si incha سبحان الله والحمد لله لا الله